عليك صلاة الله ثم السلام فبرهام جد عاشق فيك واميق وأن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله waxal ne seede naa dëggal naa ne waruñoo jaamu kenn ku yàlla seede naa dëggal naa ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy yónnate bi yàlla gëm-gërëm bi sabal bés bu set di nga julli juróomi julli tisbaar takkusaan timis gee suba weeru koor boo ko fekkee di ko or boo amee alal di dem màkk boo boo amee alal bu mat asaka di nga génne asaka seet bi ci jullit alhamdulillah moo tuddoon ah su man gannaaw yow na fekk ci islam bu ko daan bàyyi defee bu ko teral bu waaye bu ko defee ñëw na bu ko teral ñëw leen waay ñëw leen waay ñëw président saa ko ne am ittee ñëw ko mbuus kalaand صلاة الله ثم السلام فبرهام جد على بك